jàngkati tubaab yi nangu nañu wax waxaat nangu nañu répété surtout bu dee wax bu baax buy defar suma mag dafa jàllale message boo xam ne faw ma dellu ci ndax dama waxoon ni tey bis bi duma ci wax waxu politique loolu laa waxoon moom laa engagé woon nit ci sama sëriñ sëñ Moussa Nawe moo tax cérémonie wutuma ko ay bokki taalibe laa ne bu ñu liggéeyee ba pare daanu dellu ci liggéey bi sant sëriñ mais bu dee suma mag dafa ñëw jël discours bu politique wax faaw ma mbay maa ngi lay sant lu baax rek nga bëgg mais nag il faut ma wax sénégalais ne Moustapha Cissé ginnaaw yàlla mi ma bind boole ma ak Serigne Touba muy suma sëriñ suma xalaat ak suma xel kenn du ko not ba du wax suma xalaat ku may wax kay da naan man nga waxee ko barab sàngam wala barab sàngam mën naa koo dégg George Washington nee na colonisation mooy ñu takk sam xel yeew ko yeew sa tànk ba li nga bëgg a wax te gëm ko doo ko mën a wax wala fi nga bëgg a dem sa xol yebal la fa nga dem fa ngir defe ne boo fa demee da ñàkk lii wala ñàkk lii président Macky suma xarita suma doomu ndey la man ak yow ay combattant la ñuy xeex ba ñàkk ndombay tànk ci jamono yéen ñi nag ma leen di laaj ndax booba bi nuy bañ ñu not ko di xeex buñ ko bañul woon dana ñàkk sunu ndomba tànk assemblée déedéet ndax ay nit lañ fa nekkaloon kon aw ma benn problème ak Macky Sall il faut que ça soit clair masuma tudd fenn waaye nag dafa am lu ma bokk ci réew mi loo xam ne dama caa am cër ñu xañ ma sama cër ma lànk day nangu delloo ma sama cër mbaa li ngay bañ am mu ba ma nekk taalibe Sëñ Touba dëkk Touba def na ma Ablaye Wade defoon dimbuñ boobu yóbbante laa lay yóbbante bu ma demee ba mënumaa gis Ablaye wax Macky Sall daa koy yàdd mbay ni ko loolu jaaduwul jaaduwul te jéggul ndax ñi koy gis xeexaluñ ko woon man foofu rek laa ne bu ma ko gisee nag li ma ko war a wax dinaa ko ko wax bu ko nanguwul bu ma amee message bu soxal askan wi ak réew mi dinaa ko ko yóbbante loolu laa ne woon sëñ nga baal ma mënuma koo bañ a wax ndax dama dul nangu ku ma yàdd ci mbooloo mbooloo kenn du ma ci yedd man as góor laa laa te defuma luñ may yeddee maa ngi dimbali Macky Sall ci sama xel ak suma alal mbooloo mi fi jaar ñu andi fi lopp fanweeri nag defe naa ne ñi ko fi andi jënduma leen jaayuma leen moomuma leen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam